ko xaalis bi mu daal di lànk ba tëdd sa naaj wa journal bi nee na si la ko daal porte plainte waaye nag ki nga xam ne mooy jabar ji ni démb ca tribunalum Ndakaaru bi ñu ko laajee ci lu jëm ci 19 millions yi nee na abu lu ma ko dénku ma ko te xaalis bi nga xam ne moom lay wax li ko taxoon a jókko mooy tabaski ak kër ndax sama jëkkër ji Samba Alaar la dafay jëlub xaalis maanaam di ko pasar pasare te amuñu génn kër goo xam ne moom la ñu dëkk ak sunu njaboot yéen a kaay gi nee na fukki fan ak ñeent ne ñoo yor seeni boutique di jii njëg yi nga xam ne état bu Sénégal nee nañu wàññi ko ñoom nee nañu mënuñu ko wàññee ndax na ñoom mënuñu di jaay ba pare di perta perte ñi nga xam ne ñooy boutique yi nee nañu ceeb bi mënuñu ko wàññee diwlin gi mënuñu ko wàññee suukar si mënuñu ko wàññi te nag dafa am sax loi boo xam ne dafay tere maanaam jaay di perte yéen kaay gi ñu xëy fekk fa ñoom Guy Marius Sagna waa FRAPP ñoom nee nañu nag Macky Sall akub gouvernement ma maanaam dafa tëlee ci lu jëm ci wàllum wàññi li nga xam ne mooy njëg ak nag lu jëm ci wàllum location bi Macky Sall nit la koo xam ne maanaam ku irresponsable la la du samay kaddu kaddu yi Guillaume Guy mari Sagna la ñoom nee ñu jamono ji askanu Sénégal dañoo sonn ba maarale tali waaye nag jamono ji askan wi sonne jamono jooje la Macky Sall bëgg a jël ab dogale yokku limub ñi nga xam ne ñooy député yi loole nag jëfuma tey dëggantaan la kaddu ñoom Guy Marius Sagna la yéen a kaay gi de l'Observateur ñu koy fekk fa Antoine Diome ministre bi nga xam ne moom lañ dénk ngi réew mi wàllum élection yi daat nay nag andi ay leeral ay explication ci lan moo tax ñu yokk li nga xam ne mooy limub député yi yéen a kaay xëy dañu xibaar naan ñu Cheikh Omar Diagne jamono ji ma ngi ci guddi gu bët siddiku la yóbbu nañu ko si na guddeem gu njëkk fanaan na ko ci fi nga xam ne mooy kasu bu rëbës maître Djibril War moo ko porte plainte yéene kaay gi di Walf Fadjri xëy dañu xibaar naan ñu dossier Ousmane Sonko Adji Sarr ana nan la parquet bi def ba raxasu si jamono ji gars yi noonee la ñuy xool waaye nag mbir mi nag pataas bu tàng la journal bii di Walf Fadjri nee na ñoom jot nañu ay xibaar nag gars yi nag li la ñu jëloon ne ay tuuma teg ko Ousmane a dafa yemamaaya ndax li nga xamante ni moo jëm ci wàllum viol répété ak lu jëm ci wàllum menace de mort loolee ku ci mandat dépôt Ousmane Sonko maanaam dëkk bi nag mën naa yëngu problème mën naa am te la nga xam ne moo fi amoon mois de mars loolee tamit mën na fi amata wal fajiri yéen kaay nee na moo tax jamono ji parquet bi nag dafay jéem a xool daal ba xam harcèlement sexuel wala lu jëm ci wàllum attouchement sexuel ñu jéem koo tuumaal Ousmane Sonko xam na nag bu boobaa benn weer jàpp ñaari weer rek la ñu koy tëj moo xam da koy tëdd moo xam du ko tëdd yéen gi di réew mi ko Quotidien L'Observateur L'As Vox Populi xëy dañu xibaar naan ñu Boubacar Biaye ak Mamadou Sall député yi Benno Bokk Yaakaar yi nga xam ne ñoom lañ doon tuumal ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique ni démb la leen waroon a atte waaye nag atte ba dañu ko mujj dàqandi ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril yéenekaay gi di bés bi nee ñi nga xam ne ñooy waa Parti socialiste jamono ji nag teg nañ pression ki nga xam ne mooy Aminata na ñu dootu ñu leen di tayle yéen kaay gi di libération xëy dañu xibaar naan ñu armée bu Sénégal ginnaaw nag bi mu songee Nord Sindia baasu Salif Sadio boobee armée bi nag jamono ji am na beneen baas bu Salif Sadio boo xam gi di Sud xëy dañu xibaar naan ñu ni ki démb Macky Sall nag daan nay dalal ñi nga xam ne ñoo ŋànk njàng mu kawe mi maanaam recteur recteur yi ak ñi nga xam ne ñoo jiite université yi moom Macky Sall daan nay wax nag réalisation yi nga xam ne def na ko ci njàng mu kawe mi yéen kaay gi di sunu lamb ñu koy fekk fa Balla Gaye numéro 2 magu Sa Thiès nee na ñoom am nañu ay pexe yoo xam ne bu ñu ko lalalee rëg-rëg Sa Thiès dina ko daan yéen kaay gi ba tey moom Balla Gaye numéro 2 nee na nag li nga xam ne moo des ci ab carrière am daf koy assuré yéen gi di estat xëy ñu xibaar naan ñu ki nga xam ne mooy Edouard Mendy jamono ji nag ma ngi encaissé ay buts yu bëree bëri nag yéen kaay gi nee na Edouard Mendy balay